amul kenn ku ne la man naa soppi am réew ci deux mandats yi ku la ko wax dalay nax fan lay jëlee xaalis boobu fan xanaa du li mu fi bàyyi lay ñëw wala day ñëw balance yi dafa raisonnable boo nee danaa dëgëral ay canaux ay constitution lan yow kese mënoo ko et puis ñan ñooy sa équipe yow kese mënoo dara bu dee sa équipe ñi fi nekkoon la yaa ñëpp a yem yow nooy ñëwee di réforme ànd ak ñi fi newoon logique révolution bi ñuy xaar dëgg dëgg dëgg bi Sénégal jotugu ci te accès bu bu accès ñëpp dinañ ko xam révolution bu mel ne bi Iran bi Sénégal di xaar pour développer du ñu ñoo koy def ku génne Iran bu def révolution boobu nitu daara mooy ñëw def révolution des na tuuti ci kanam am ci kanam sax da koo foogul rek du dara du fee de monde boo xamante ni ci ñun mm, ci base électorale bu dee nekk fee de monde xam naa ci yeneen circonstance lay nekk ci àdduna bi yoo xam ñun duñ ci dara waaye électoral bi warul ne nag man bokkuma lii ki laa nga man débat yi ñuy def sax ci télé yi dara intéressant na ci ay météo la ci xelu jàmbur président nee na woon lii nangam mujj gi demul ñuy nangam au lieu que ñu wax sax institution bi dañuy def personnel ci jëmmi nit ki ba ñuy wax Abdoulaye Wade ñu ko daan wax waxatuñ ko Wade nekkatu fa Macky mii léegi duñu waxati waxam léegi politique boobu dafay dee il faut que ñuy def politique buy dund bind liifar personnel ci nit ki loolu moo gën a gàtt fan loolu du dara il faut que ñuy gën a yaatal xalaat yi